juróomi fan ci weeru juillet ñu ànd ci ak Chérif Dia doore kook l'observateur Chérif jërëjëf Cheikh l'observateur ñëw na rek ci projet jëm ci modification code électoral bi doon wax donc mel ni tey jii kon gouvernement bi woonan leen conseil des ministres extraordinaire ci altine ji ku ne xam ne ni àllarba lan daa daje muy réunion hebdomadaire conseil des ministres tey jii kon ca palais de la république jëwriñ yëpp daañu fa teew ngir eh, jàngat eh, lu ni mel conclusion commission politique bu dialogue bi kon xam ne ñi ngi woon fii ci King Fahd Palace suñu toll une semaine ngir xool yan coppite la ñuy indi ci boobee code électoral xëy na eh, gars yi dinañ ko ci càmbara ñu waxit ci sàngara si ñu koy jëfandikoo fii ci Sénégal mu mel ni ah trente million litres gars yi naan nan ko ci atum 2020 boo bokkut li ñu liggéey ci miim réew muy loo xamante ne journal bi daan na ci ñëwaat énorme chiffre la ko tuddee premier semestre atum 2021 bi tamit maanaam euh, jëfandikoo gi bari na muy loo xamante ni direction commerce ñoom ñoo joxe yooyee chiffre journal bi na ci benn enquête muy location voiture business bi ci nekk ak tamit yenn saa yi excès yi ah gis na yenn saa yi sax ay gone yoo xamante ni ay mineur la di luye oto bay def njombe am na ku ci rayoon ab alkaati yi dem moo njaay ca wetu jam ñaajo muy loo xamante ni lu doy waar la Wally Seck it euh, mu nga ca xëtu yéen a kaay ba moom daal nee na ay citation directe dina ko jox képp koo xam ne yaa ngi xëy di yàq dana am di ko jiiñ jege boroom ñaari tur yooyu te tamit bëggul ay intervention ki médiation bëgg na daal mu dem ak gars yi ci yoon ñu àttaleen ndax daal sonn na ci tuuma yéen koy tuumal jëm ci wàll woowu ginnaaw l'observateur ñu wax ci euh, journal bii di source a moom it ñëwaat ci euh, jéye ji na nemeeku ci lycée unité 13 bu Parcelles nii benn ndongo daara bun fa faatoon ci ay match interclasse mu mel ni kon euh, gars yi daal am na ci ñoo xamante ni enquête bi journal bi daal di ci ñëwaat ak détail bi gone gi mi ngi tuddoon Cheikh Bamba Ndiaye faatu kon ci alxames bi ñu génn journal bi daal dina ci ñëwaat ak tamit conseil des ministres bi nga xamante tey ji la kon jëm kon ci code électoral bi ñu koy xaar bu baax ak tamit euh, Aly Ngouille Ndiaye moom nee na ah, mel ni kuy tontu Ousmane Sonko ñu naan ay Sarkozy ak euh, Tony Blair ñoo nekk ci loi antiterroriste nee na loolu xel mënu koo xalaat ah. tontu la boo xamante ne maire Linguère bi tontu na ko Ousmane Sonko moom mi fi nekkoon ministre de l'intérieur ginnaaw source a ñu wax ci euh, vox pop euh, troisième vague bi daal mën naa juri musiba moom la président Macky Sall daal di wax rawatina variant delta bi daal moom ak relâchement bi bàyyinte ko gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko vaccination bi yooyu yëpp daal démb kon njiitu réew mi daal dina ci ñëwaat rek ci benn ndaje boo xamante ni kon ñu ngi ko jaarale ci xarala yu bees yi ex en province la gars yi nekkoon moom mu nekk fii ci Ndakaaru moom euh, Macky Sall ministre de l'élevage min dénk kon wàllu càmm gi Euh, mi ngi dalal xel yi jëm rek ci xar yi dina doy ci euh, tabaski yi ñu dëkkmal moom euh, Ali Sallé Diop moom moo gisee nii mu nga woon nag kon ca marché bu Daara Jolof ak tamit plateforme Dakar Plateau bi ñu bëgg ñoom daal révolté wu nan rawatina jëm ci stade Assane Diouf nga xamante ni gars yi ne leen dañ koo jaayaat te Macky Sall daf ne woon daf koy delloo waa Rëbës. ginnaaw Vox Pop journal La moom it ñëw ba léegi rek ci contamination bi mi ngi yëg. Euh, troisième vague bi Sénégal a ca mel ni kon daf koy rek menacé ba tax na démb boo xoolee ci ñaari fan lu toll ci euh, ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci contamination ñeenti nit seen bakkan ay cas grave yoo xamante ne kon ñu nga ca sauvetage taux de contamination bi daal daanaka mi ngi yéeg jëm si ko journal La Tribune moom moo gisee nii ba tax na kon ah, ak tamit Macky Sall ak yi nga xamante ne yëkkati da ko ci yooyee kàddu ah, ci biir journal bi ginnaaw loolu ah, ñu wax ci Walf Quotidien moom daal di ñëw ba léegi rek ci diggante sa Seck ak Macky Sall mu mel ni kon am na ci ñoo xam daal neexu leen rawatina waa PS ah loolu la journal bi daal di wax mu mel ni kon allié bu beesu mag Sall bi daal tax na kon mu yëngal boobee coalition wàllu koom-koom ak budget bi dafa mel ni werante am na ci diggante Abdoulaye Daouda Diallo min dénk gafak ak mi ak kii nekkoon fi ministre euh, premier ministre Abdou Mbaye moom it euh, xam-xamam màcc wàllu koom-koom euh, mu mel ni kon daal ba léegi gaa yaa ngi werante hôtellerie se sali dafa mel ni mbas meeg yooyu dafa mel ni daal ñoom it troisième vague bi dafa leen a tiital ñu yor wàllu hôtel ba tax na kon mag Sall moom piir bi lay craindre ñu wax ci les échos ak euh, borom ñaari tur ba léegi muy LGBT yi ca France ñoom daal li ñuy laaj mooy góor jigéen ñi nekk fii ci senegal ah, ñu daal di ñoom it taxaw bañ nooteel ñi ah, ñii dafa mel ñi ñu bëgg yee fitna fii. te xam ni réew mi gars yi nee nañ loolu du fi mës am ba tax na kon association yi daal ñoom ñëpp gis nga jug nañ ngir jàppale nee nañ góor jigéen ñi nekk fii ci Sénégal Macky Sall moom wàllu vaccin bi nga xamante ni wàllu nationalisme vaccinal réew yi nga xamante daal ku ci nekk sa bopp nga bëgg a sédd ba pare téye ko bañ koo bokk daal loolu tax na mu am ay kaddu yu dëgg yoo xamante ni yëkkati na ko ah, jagleel ko waa bitim réew moom président de la république et puis Abdoulaye Daouda Diallo daal dafa mel ni dana Abdou Mbaye eh, li mu wax teg ko ci budget bi tegu ko fu dëgër légèreté la ko wax ci wàllu nasaraan ma Fall daf mel ni mi ngi tontu gaayam yi ci biir xëtaw yenn kaay bi le le quotidien moom ba léegi rek ak manque solidarité maanaam ñàkk jàppal ma jàpp gi ci wàllu vaccin bi ak ci àdduna bi Covid bi mag Sall daal am na lu ko ci métti ba tax na kon bu yëkkati yooyee kàddu ah, rawatina réew yi nga xamante ni kon national vaccinal lañ def troisième vague bi mën naa indi loraa nga ndax am na ci réew yoo xam dem na ba di ñàkk seen i mala ñoom ñàkk nañ seen i nit ñàkk seen mala journal bi daal dina ciy ñëwaat ak tamit professeur Moustapha Kassé retraité euh, ak tamit gis nga li doon wax sànq dafa mel ni ma jambal bind na ko tey mu ne ndax mag Sall dina fi dakkal cumul de mandat yi mooy les dem les lundi de ma jambal teranga moo vi ah, artistes yi ñu ngi leen doon neexal dafa mel ni dérapage série boobu jël na faraaya ñu ngi ci xëtu yenn kaay bi président Macky Sall moo nekk ci xëtu yenn kaay bi di Sud Quotidien ñëw coon ci li ni tiit maanaam troisième vague jëm ci coronavirus bi mel ni kon ñu ngi alerté di dànkaafu rek waa bitim réew ak képp koo xamante daal jug nga ngir bañ a bokk vaccination bi rawatina variant delta bi nga xamante ni moom daal jàpp na ni bokk na ci li yokk mbir yi ak tamit relâchement bi bàyyindiku gi nemmeeku réew yi nga xamante ni aussi nationalisme vaccinal la ñuy def ak tamit xibaar bi nga xamante du woon dëgg gars yi ne woon procureur bi dafa feebar moom Serigne Bassirou Gueye fake news la muy xibaar yoo xamante ni teggul fenn ci dëgg gars yi doon ko circulé ci réseaux sociaux yi ginnaaw Sud Quotidien ñu wax ci libération ba léegi Bocar Samba Gueye nekkoon fi kon importateur ceeb bu mag fii ci Sénégal mel ni kon amoon na jafe-jafe yenn banques yi ba tribunal am ci yoon mel ni kon rek euh, tax na kon euh, cour d'appel ah ca Thiès moom euh, rek gis nga ko mi ngi koy jox dëggaat scandale boo xamante ni kon juróom-ñaari milliards yu teg téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom. Euh, diggante werante baa ngi noonu ci wàllu koom-koom Abdoulaye Daouda Diallo ak euh, Abdoul Mbaye Diagne Ndiaye moom mi ngi dalal xel yi moom moo jiite konos suñu àddina nag ñi ngi waaj a dem fële ci Tokyo ku ne xam na ni kon euh, ñaar fukki fan ñett bu ma juumul kon le JO yi di tàmbali gaa yi nag dafa mel ni kon ñaari vague la ñuy def ñii dañuy dem jiitu ñeneen ñi fekk leen fu ndax coronavirus bee taxoon jeux jeux olympiques yooyu ñi ngi waroon a am daaw waaye mbas mee tax ñu daal di koy indi ci 2021 bi ñu wax ci tamit événement bu mag bi gis ngeen ko ëllëg kon demi-finale yi dinañ tàmbaliwaat jëm kon ci euro 2020 bi ba léegi ñu ngi koy amal 2021 mais euro 2020 la ñuy wax ouragan anglais kon ah, face ah, ah mu nga jëm ci Wembley ku ne xam ne ne anglais yi dafa mel ni à domicile la ni football ndax Wembley moom seen ab stade la mu nga ca Londres gis nga ko noonu ah ñoom ah, Danemark lan war a dajeek Italie moom war a football ak équipe ba Espagne waaw muy choc bu mag ñoom it Edouard Mendy moom it raaya gis ngeen ko dafa mel ni ca Ghana am na lu ñu ko fa jox jëm rek kon ci footballkat bi gën a xarañ Tëngéej FC démb dafa daanu Géejuwaay football GFC waaw muy génération foot moom daal di nay romb pikin jëm kon ci boobee classement ci lig bu Sénégal. ginnaaw record sunu làmb mu ngi noonu bombardier ah plus dangereux que jamais loolu la daal di wax de bombardier moom it mi ngi waajal bu baax a baax. combat moom bombardier ak tamit gis nga ko noonu doole doxul jàmm Gris 2 moom moo daan donc Abdou Diouf euh, jëm ci làmb yi nga xamante ni kon amoon nañ ci weekend bi su sunu làmb moom moo gisee nii. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, Chérif Dia 7h40 minutes euh, jot na mbokk yi kenn dal ak jàmm lañ leen di waaye